wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi tàmbalee sunu nuyoo ci a Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan sunu boroom yokk koo tawféexal yokk koo dëgëral ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa di teg nuyoo bi ci loxoy sunu wayjur yi fi nekk suñuy kilifa seen jataay bi rëy na ci ñun lool ndax kóoluteef ak doyloo ak yittewoo sëriñ bi moo leen yëkkati moo leen tax a def déplacement bi lii ñu woote nag dama bëgg leeral lu tax ñu woote ko xam ngeen ne réewum Sénégal ci tubaab dañ naan exception sénégalaise maanaam soo xoolee ci Afrique réew la moo xam ne wuute na lool ak réew yu baree baree bari ci Afrique ndax réew yu baree bari ci Afrique dañuy xeexoo dañuy xiiroo dañuy ŋaayoo ay dafay tàkk te li ko waral lu ci bari ci mbiri waaso la mbiri pas-pas ak mbiri xeet moo koy waral Sénégal nag ñiy xeltu ñëpp dañoo jàpp ne Sénégal mucc na ci loolu te ku jàngat danga gis ne li ko waral mooy ñoo ngi jóge ci màggal jëm ci gàmm xam ngeen ne kilifay diine yépp ci réew mi su xew-xew yooyu amee kër goo ci dem xeeti Sénégal yépp da leen fi fekk muy wolof muy séeréer muy joolaa muy xeet yu mu mën a doon ñu am lu leen boole mu di pas-pas bëgg sëriñ Touba wala bëgg seenub sëriñ tax ñuy fàtte loolu leen wutale muy ay xeet ak i waasoog yu demee noonu jàmm jooju senegal amee ci loolu nag kilifa diine yi tabax ko ba senegal agsi fi mu agsi nekk exception ci wàllu jàmm ci wàllu démocratie ak ci wàllu jàmmoo ak ci wàllu xajoo nit ñi ami wuute ci diine ci tariixa waaye téewul kenn ku ne xajoo sa moroom loolu mag diine yi ñoo ko fi liggéeyoon kilifa diine yi ñoo ko fi liggéey kër yi diine yi ñoo ko fi liggéey tarixa yi ñoo ko fi liggéey du état du colonisation bi ñu jógee du état ab poste indépendance du kenn ku tabax loolu Sénégal am tuddul kilifa diine yi tuddul kër yi diine yi loolu Sénégal am nag la génn jëmm muy Omar Diagne jóg ne dafee war a jeex taxaw na ne balaa yàgg tarixa dootu am Sénégal kon mi ngi ci xeex tarixa ba tarixa jóge Sénégal ndax ku mel noonu bëgg na Sénégal koo xam ne li Sénégal am ci jàmm ak tawféex li ko ko may nee na loolu na fi jóge wax na itam ci waxam ne xolam sëñ Baye Gueye sëñ mi ngi koy fàttali léegi xolam Cheikhul Khadim nekku ci du ko def ci xolam bari na ñoo xam ne Cheikhul Khadim nekkul ci seen xol xam nañ ko am na ñoo xam ne ci mbind ci article waaye ku fës ci vidéo fang di wax ne Serigne tuubaa nekkul ci sama xol moom guléet ñu koy soog a gis ci ab sénégalais lii nag jataay bi ñu woote li ko waral mooy naam ñu baree baree bari ñu ngi def ay vidéo di def ay réaction di wax loolu lu baax la ndax kenn ku ne am nga noo mën a songe ci xeex bi kii ñuy xeexal moom nag bu jëmmam moo ñu tax a jóg waaye li muy représenté xalaat bi muy représenté pas-pas bi muy représenté ak gisin bi muy représenté am na ñu naan jërutoon ñuy def lu mel nii ndax wax ji yi muy wax lu yàgg la am na ñu naan biñ ko falee rek ci lañu waroon a jóg waaye dañoo war a xam ne li waral lii ñu def ko da bokk waxam yi mi ngi soog di tasaaroo nii mu tasaaroo ci fan yi màggal bari na ci jataay bii ak ci sénégalais yi ñoo xam ne xëy na am na lenn luñ daan dégg ci ay waxam waaye néew na nga gis koo xam ne li mu daan wax lépp dégg déglu nga ko wala déggoon nga ko wala xamoon nga ko dafa mel ne jamono yi màggal gii ci la ko suñ borom weer ba mu ne fànn ba ñépp xam taxawaayam ak li mu daan wax ak lépp lim daan wax nit ñëpp ñu sulli ko ba ñëpp teg ci seen bët loolu nag su amee te itam ba muy daan wax wax ji suñ nee dañoo waroon jóg ca booba booba benn waay rek la woon waaye léegi dafa am ay responsabilité ci état du senegal responsabilité yi mu am ci état du senegal da koo jox beneen dayo mu mel ne kon waxam yii feeñ ñu di ko dégg di feeñal mbañeel di feeñal ak coxor di feeñal bañ a def ci xolom Cheikhul Khadim waxam yii feeñ bii mu feeñ ba tasaaroo ba ñëpp jot ci weeru dafa mel ne mënutoon a ñàkk ñu def jataay yu mel nii dénoncé kii mu doon ak li muy représenté ndax su weesoo loolu itam xam ngeen ne wax ju yàgg su dee wax ju baaxul la jëf ju yàgg su dee jëf ju baaxul la lu mu yàgg-yàgg su ci ab su ci suñ borom ubbee sa xol ak sa xel war nga cee taxaw taxawaay ba nga ci war a am kon du lay ci ne lim daan wax wax ju yàgg la te sax nag ay bis ci ginnaaw rek yokk na ci xar mi kawar ndax def na conférence boo xam ne ŋàññi ci mbindi mag ñi ŋàññi ci Sëriñ Tuubaa ci mbindam doyadal ko tuutal ko kon kooka la mu daan wax ñu ne wax ju yàgg la ca la nekk ba léegi te loolu firnde la ci kon loolu jar naa tax ñu def jataay yu mel nii jataay bi nag xam ngeen ne li tax ñu koy defit mooy li muy représenté doon wax li mu daan wax ñu teg ko fii ñu ko teg day mel ni dafa am promotion ci li mu daan wax ak di ko jëf muy xeex tarixa yi xeex kilifa diine yi te loolu bunt la boo xam ne su ubbeekoo ñeneen ñu ay xemam ñu mel ne moom yu bare baree bari danañ jaar ci bunt boobu ci doyadal sëriñ si doyadal seenub liggéey xeex tarixa yi xeex kilifa diine yi bunt la boo xam ne suñu ko tëjul ñu baree baree baree bari ñu ngi ci ginnaaw làqatu di xaar lool lii mu def jikko ba ñoom it ñu jaar ci bunt boobu kon nag bunt bu mata gaaw a tëj la lii ñuy def nag du parparloo ci politik du parparloo ci bëgg lu neex ma sàmba wala lu naqari ma demba li ñuy def daal mooy liggéeyal Serigne Touba sàkku lu ko neex sàkku mbégam ci xeexal ko taxaw ci li mu fi bàyyi ci ndono suñu kem kàttan ñu di ko sàmm ndax ñi àndoon ak sëriñ bi di mag ñi kenn yabu kenn yabu leen woon ab murit daana nekk ci dëkk historien yi duñ ma bàyyi ma wax lu dul noonu ab murit daana nekk moom tundum ci dëkk ñu di ko wax lu ne mu di ko dékku di xeex di xeex di xeex ba imposé fa yoonu sëriñ Touba yoon wi looloo ko tasaade ci àdduna bi yëpp looloo ko tasaade ci réew mi kon nag fulla jooju mag ñi amoon doon lim bu néew ñu dema dem bay wax ay million fulla jooju waruñ ñu koo ëpp ëppale waruñu ëpp pas-pas waruñu ëpp bëgg-bëgg ci liggéeyal Serigne Touba ak taxawal ko ak ak xeexal te liggéeyal Serigne Touba taxawal ko xeexal ko mooy xeexal suñu borom mooy xeexal sang bu tedd bi Moustapha sallallahu alayhi wa waaye mooy xeexal réewum Sénégal yitam ndax mooy xeexal réew réewum senegal yitam ndax njariñul senegal mi ngi ci cohésion bi nit ñi am ñu mën koo sàmm jàmm ji nit ñi am ñu mën koo sàmm xajoo bi nit ñi am malgré seeni différence ñu mën koo sàmm te loolu mooy tax ñu mën a dëgmal développement endogène sukkandiku ci suñu bopp ni ñu ko Sëriñ Tuubaa jàngale woon ba mën a jëm ci kanam kon dañuy foog xëy na rafet njort dogal ngànt ñi ko tabb ci ne xëy na bañ koy tabb xamuñ woon la mu daan wax xamuñ woon pas-pasam xamuñ woon la mu daan jëf loolu mën nañ cee dog ngaan dogal ngànt waaye nag léegi xam nañ xam nañ li mu daan wax xam nañ ay position xam nañ xalaatam xam nañ li mu yëngal mooy xolu jullit ñu xoli taalibe yi kon léegi umpaleetuñ ci dara nañu jël seeni responsabilité la ñuy def nag ñun duñu leen ko wax waaye ñoom daal dañu jël seeni responsabilité en tout connaissance de cause ñoo ngi sant bokk taalibe yëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man wala ñu ngi siyaare kilifa yépp rawatina njabootu Cheikh Man Fadal gi fi teew di ñaan suñu borom def barke ci bis bi ci seen teewaay boobu waa ji jaañ nag du ko tuddee mbaam sax ndaxte mbaam amal na njariñ Touba ku nekk ko xam Touba xam ko damay bañ mbaam yi mere ma waaye ko xam calendrier maçonnique bi da xam ni moom ab franc la boo xam te nii nëbbut ak franc-maçon daanaka ndax ñoom lu ñu bëgg a dëgëral rek dañuy mel ni koy weddi noonu la ñuy doxee yim laal nag ci yoonu murit ak ci sëriñ bi bu fekkoon yoonu murit day jëmm day mel ni xol ba la laal ndax mbindum sëriñ Tuubaa la laal ak jumaam ji te ñaar yooyu daa àggoon sëriñ bi sore sori moo tax keroog ba maam Cheikh Anta fekkee sëriñ bi sëriñ bi fekk ko ci melaw doy waar melaw woo xam te mënees koo nett li am murit commencé jël yére sëriñ bi di fóot dajale ay dàllam ak i gaalam sëriñ bi dadi ko Cheikh teg maa dajale sama xalima yi may dagg sama sant bu tedd bi kon mbindum sëriñ bi la attaqué loolu nag li ko waral mooy li ma wax léegi ci ma maçonnique bi ku ne xam na ni Serigne Touba mi ngi doog am téeméeri at ci kaw suuf ci biir suuf ci zahir te ku ne xam na ni ñoom dañuy wax ñoom franc yi dañuy wax toujours ni gépp kuréel koo gis bu xasee am téeméeri at lu mu màgg-màgg daan daanuwaat waaye dañoo gis ni yoonu murit dafa am téeméeri at di gën a kawe di gën a yëkkatiku moo tax ñu taxaw temm ngir attaqué ko wala yàq yàq li nga xam te ni mooy njàngaleem Serigne Touba moo tax mu laal li gën a rëy ci yoonu murid muy mbindum sëriñ bi sëriñ bi mbindam bi nga xam te ne wax na ni moo raw suyoox yi def tarbiya ak yi def tarqiya am mbindam ñoo leen gën a gaaw ci gën a gaaw ci yéegal nit ba àggale ko ci yàlla mbind moomu la jël attaqué ko wax ni mbind mi am nag manqué war nañ ko mën a corriger war nañ ko mën a xoolaat daa am mag mu waxoon sëriñ bi ni ko yaruuxu lahul maana kariqati lafzihi nee na sëñ bi ay waxam maanaa meeg baat yi amul lenn lu ci nit mën a contesté ndax neexaay bu neex ak am solo bu mu am solo lii nag yàgg na koo def moom moom Omar Diagne yàgg la koo def lool waaye nag li kulli shay'in sabab wala kulli shay'in ajal mbir moo gis am na fu muy yem ndax murid daan nañ romb ay waxam jamono bu nekk muy wax lu métti di koy métti lu seen biir nekk waaye buñ jógee tey di ko métti loo nii sëriñ bi ci boppam moo ci dugal loxoom ndax murid bu nekk fu mën a nekk ci kaw suuf ni ñu koy kon nag nii mu méttee murid yi naqari leen naqaree leen noonu la naqaree suñu borom subhaanahu wa taala noonu la naqaree yonente bi sallallahu alayhi lii nag bu mu saa am ci kaw suuf liñ daa def mooy ihdaaru dam lañu daa def maanaam dañuy wax ni diw mi wax lii kat deretam dagan na kon Omar Diagne bis naka bis ba mu të tëbee di wax ci sëñ Tuubaa boo koy deretam daganoon képp ku rey amoo amoo amoo fitna amoo ab àtte bu ñu la def ci diine la tax mooy innama jazaau alladina yuxaaribuuna allah wa rasulahu wa yasauuna fi l ardi fasaadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaa aydihim wa arjuluhum min xilaaf aw yunfa min al ard imaam Baxawi bi firi aaya bi neen daa mel ni suñu borom daa mer mi wax fii Omar Diagne Omar Diagne na ci ñooñu la bokk an yuqattalu maam ñu rey leen rey goo xam te rey bu métti lay doon aw yusallabu mbaa ñu wékk leen aw tuqattaa aydihim wa arjuluhum min xilaaf wala ñu dagg loxo càmmoñ ak tànk ni joor aw yum fa minal ardi wala ñu génne leen moom nag loolu dal na ko ndax yaakaar naa fi ne nii moom mu génn dana jafe lool mu génn dem ci ab jotaay dana jafe ci moom lool ndax murid yëpp a nga ko jàppal mer te ku jàkkaarloo moom la nga fas yéene mooy jëflante ak moom kon nag ñuy wax ni ab ragal la rek ndax ab ragal mooy def li muy def ndax li si Moustapha wax léegi nii keroog bañ ko tiimee wal fajiri muy lox ginnaaw yàlla man mii maa tax muy dundaat ba tey te ba mu génnee la di wax ay wax ak di kiyaat kon lii muy wax nii lépp ab calendrier la boo moom mi koy wax sax comprendre li muy wax ndax ñi koy wax loo muy lobby maçonnique yi nga xam ne am na ñoo xam nekkuñu sa biir Sénégal ñooñu koy wax loo loolu maanaam mooy tëdd miir yoonu murid tasaare yoonu murid ndax gis nañ ni àddina bi fi ne nii fi mu toll nii fépp a jaxasoo ba mu des Sénégal te li tax jaxasoowul mooy yoonu murid te li tax jaxasoowul mooy sëñ Touba ko mbindam mbindum sëñ Touba moom nag mu jël ko di ko attaqué ak jumaay sëñ Touba ji nga xam ne sëñ Touba daa waxoon nii bala maa bàkku sama jumaa ji àgg bañ ma koy jullim ci lay bàkkoo man abdul xalil kon nag defi na àddina defi na mond bi defi na yoonu murit ñuy wax ni kon ñu ngi interpellé état Sénégal lu mu gën a gaawee mu jël ay mesures ci waa ji ndax bu bàyyee bañ rey ko mbaa ñu laggal ko su boobaa moo yor nekk responsabilité bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu kilifa yi fi teew di jiital sëriñ Aliou Mbacke Sambour Fadal ak sëriñ Serif di nuyu sëriñ Cheikh Fatma mi nga xam ne moo initié jataay bu am solo bi di loo xam ne ñëpp la war tey lu am solo la day faral kon su fekkee ne tànn na lu mat ñaar fukki ak juróom-ñett zulzite ci mbooloo yi nga xam ne xam ngeen ne seen liggéey weesu taxawal diine ak wane njàngaleem sëriñ bi te loolu kenn jiituwu ci daaira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk jumaa ji te biir wax yu ñaaw yooyu nga xam ne mi ngi koy wax moom Omar Diagne moomu xam na li muy def parce que day dàkk yi nga xam ne moo gën a symboliser ci yoon wi xam ne ne jumaa ji bokk na ci yi nga xam ne murid yi dañ ko def ci seen xol moo tax mu wax ci lu ñaaw kon daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi ci biir mbooloo moomu ànd ak kuréel yi muy daaira al wafa daarul muxti ngeen xam leen ñoom it ci tisaare njàngalem sëriñ bi académie minan bu daarul minan ayam muy association des écrivains mouridiya muy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy bind ci langu nasaraan wala langu bu mën a doon ci fànn yi ñoo ñëpp ñu ngi ci biir mbooloo mi nga xam ne ñooy signé lii nga xam ne moom lañ fa yéenee jébbal njiitum réew dañuy jàpp ne nag xëy na ki nga xam ne moo jiite réew mi bi muy fal kii nga xam ne xëy na xam nañ ne nitu fitna la wala waaw euh, li ki doon tamit waa miise bi nga xam ne ñooy saytu ak sàmm ndono yi nga xam ne sëriñ bi bàyyi na ko fi te sëriñ sërif mi jiite ko ñoom it dugg nañu ci biir mbooloo kon li sëriñ Cheikh Fan ma wax rek ñun la ñuy dañuy jàpp ne bi mu koy fal xëy na trompé wu na ci ndax ku mel nii nga xam ne day yeefit na ci bi réew kenn du ko dugal ci biir ab pale kon loolu moom responsabilité yi warees na ko cee jël beneen bi nag diggante Touba walla wala yoonu murit jàpp naa ne état bu ko am doo jéem a xool luy karajal seen diggante ndax fii lañ gis fekkee liiru luñ ko archive bi sagam mi ngi pale fii lañ gis état Sénégal di def conseil des ministre fii ci région Diourbel fii la dal képp gouvernement bépp Touba leen dalal kon suñ dee réviser lu mel noonu xanaa dañoo fàttalu ci jamonoy colonial ya ba léegi Serigne Touba bi France jaaxlee moo leen dimbale Cheikh Mouhamadoul Mountakha mii wala Serigne Sidi Muxtaar mën nga ko cee tàmbalee moom lañ gis mu génne un milliard def ko ci Covid te war-waru état la kan moo doon jaale ji ak massawu ñi nga xam ne dañoo faatu ci xeex bu metti bii nga xam ne. ci la Sénégal yi jëlee naqar wi fal état bi tey suñu Cheikh Amadou Mountakha mbënn mi ak réew yi nga xam ne ñoo wër Sénégal ku ci am jafe-jafe kon ku mel noonu nga xam ne kenn deful leen dara suñu borom rek la ñu wéeru ci la ñu wàkkeeru Sëriñ Tuubaa kenn deful ko dara kon ku mel noonu kenn wërta fat koo xam ne day wax lu jëm ci di ko karajal kon nag loolu jàpp naa ne danañ ci jël seeni matuwaay kon kuréel yi nga xam ne daal dañuy lëkkaloo di liggéeyal sëriñ bi ñu ngi ànd bu baax a baax a baax di ko xeex di ko dénoncer di ci ànd yi nag saa su nekk ma ne saa su woo suñ wootee wala saa lu xew kuréel yi ñu ci biir ngir ànd ko ak Serigne Cheikh Fatma ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko ànd ndax Serigne Touba moom dëgg la wax na ci Matlabul Fawzayni ne wa kullu man satamani aw laama fa hawlahu tawbata wa istislaama gàttandu na gaaw di yërëm ki nga xam ne da koo ŋàññi wala mu mu bu di ko wax lu bon di ko ñaanal ak mucc waaye fa kullu man asaa sannahu bi yaa fali ya xalbuhu ya rabbi ya ñi ñaaw njort ci moom it mi ngi leen di ñaanal seeni xol di walbati waaye ñun ñi nga xam ne nag amuñu lu dul moom luñ gis luy jëm ci moom comme moom ni mu daje ay coono ngir ñun ñu war nañoo daj ay coono ngir sàmm ndono lii mu fi bàyyi loolu jàpp naa ne kon murit yëpp la war rawatina taalibe yi waaye rawatina ku nekk ci Tuubaa gi di fi dund asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di sant Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ñaan yàlla fayal na ko te yàlla tas ci ay barkeem di sant Cheikh Mouhamadul Fadal mi ma booleeg Sëriñ Tuubaa di ñaan yàlla fayal na ko yàlla tas ci ay barkeem di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa xalif général de mourides sëriñ Touba mu yàgg fi lool te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal sëriñ lépp mu àggale ci sago te nu fekkee ko te ànd ko ak moom noonu koy ñaanale njabootu sëriñ Touba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di ñu ko ñaanal njabootu islam gépp njabootu Sénégal gépp di ñu ko ñaanal ñun taalib yi ak fi mën a bokk di tàmbulee sant gi ak ñaan gi nag ci taskati xabaar yi ndax lii ñuy def ni ngeen ci ba ñu mën ko jot li fu ne ci àdduna si jot ñu leen ci sant ci turu bokk yi fi teew yëpp di jéggalu itam ne bala ñoo wax dara ci jeexe ñëw gi yàlla dafa dogal yi fi fekk ñu Dakaaru xam ngeen mbiri oto rek am lu ñu doon def lu ci daamar ja ci oto Sëñ Tuubaa bi ñu yore lépp Sëñ Tuubaa ko moom oto Sëñ Tuubaa ñu yore am lu ñu ci doon defarlu mu xaw a yéex a noppi na sax waaye ko fa doon jëlee moo xaw a yéex a dem bi ñuy génn itam xam ngeen tey Dakaaru day samedi ak burdu bi ñu toll ñu bari dem ci dëkk yu tedd yu bari di dem ci burdu bi ak weekend bi yooyu tax yow ni xawoon a xat ba daanaka dañoo ak sa jiwul si fii ñu ngi jégg bi ci yeex ñëw bi ndax dañu jàpp dañoo soroon ñëw bale barab bi dalal ñuy teew njëkk fi mujj fi ngir sëriñ Tuubaa bi tax ñu koy woote amul lenn lu moom luñ mel mooma luñ am mooma ñu xam mooma yàlla nañu ko yàlla fayal ñu sant mbokk yi fi teew yëpp nag xam naa ne da ngeen a baax rek suñu fàllu waaye di jël ko woon sama mbokk yi fi teew jiite woon fi mën nañu lii fu ma ko sama doomi sëriñ yi fi teew ak sama mbokk yi fii jéem a wax ñoo ñu ko dàq mën nañ ko te bi ma agsee rek sama doom ji fekk muy ji def euh, déclaration bi en français defe naa seen Cheikh Fatma la bu Cheikh seen Moussa bu seen Mouhamadou Bachir foofu itam danaa fi danaa fi def observation bu boo xam ne dama koy ñaan mbokk yëpp rek euh, da ngay dégg bu ñu tudd ñu bari ci mbokk yi da ngay dégg ne lay wax Mamoun Mbacke Serigne Mamoun Mbacke Falilou déedéet nañuy wax Mamoun Mbacke moom Serigne Fall waaye ni ni Serigne Mamoun Mbacke ba def naan Falilou loolu loolu loolu xaw naa xaw naa cofaate Maamun Mbàkke rek Maamun mën nañu ko wax Maamun Mbàkke moom ba tey moom sëñ Fallu nag war a ko wax sëriñ Hamsa sëriñ Hamsa moom sëriñ Abdou Lahad mais bu ñu wax sëñ Hamsa Hamsa Abdou Lahad moom dama koy ñaan bokk yi rek ndax sàllalu kilifa day xañee barke te bu sañoon ñu ñëpp ñu am barke waaw kon loolu correction la boo xam ñu ñëpp dañu ko yóbbaale di ko di ko di ko di ko laafale ci turu kilifa yi ñu laaf seen turu waajur bu ñu tudd kilifa ko ba nekk di sàllalu waajur kooku parenthèse la euh, bu loolu jàllee bëgguma leen téye lu yàgg ndax xam naa guddi li waroon wax wax nañ ko ñu waroon a jëf nañ ko dañuy sant ji fi teew ñëpp rek di leen gërëm di leen sant ci turu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ndax ñun murid li ñuy def lépp génn kilifa ñam muy muy sëñ Touba te sëñ Mountakha mooy sëriñ Touba li ñuy def moom lañ koy tax ñu teew fi nag yéen ñëpp xam ngeen ko juróom ñoo ma cee dem eh, xam ngeen ne ak tooñ la boo xam ne xam ngeen ko yéen ñëpp te ki tooñ tooñul tooñul murid yi rek eh, conflit yi yëpp la tooñ tariix yëpp la tooñ donte Cheikh day wax ne am na tariix bu bokk si tooñ boobu tooñ na ko ndax bi muy tuumal ñëpp la tuumal gis ngeen li suñu mu wax nee na dañuy trafiqué dañuy def blanchiment de l'argent dañuy jaay dañuy jaay kon kooku ma ngi def contradiction ak boppam parce que fa muy wax ni fa la bokk ak tooñ la ah, te bokk fa ndax foofa xam nañ leen kër ga muy wax ne ci la bokk ak tarixe ba xam nañ kër ga xam nañ tarixe ba wala rek lañ seqee ak moom jàmm rek lañ seqee ak ñoom kër ga muy wax ne ci la ak kër gii tuubaa dañoo seqal ak jàmm rek te tàmbali ga bu yàgg ñaata jamono El Hadj Abdoulaye Niass ak Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Niass Cheikh Cheikh moom Mouhamed rek lañ seq ba ci ñun fa nekk dañoo seq ak ñoom jàmm xale yi fa jaar yi ci mujj muy Serigne di Serigne euh, Cheikh Ahmed Tidiane surtout ñu daan ko wax papa papa Cheikh nga xam ne affectueusement waa kër dañoo jaxasoo woon moom muy suñu wëllëre lool Imam Hassan doon suñu wëllëre lool

kooka loola def naa ne ñam tooñ ñoom la ko seqal te tooñu ñun murid rek confrères yëpp la tooñ te dañ leen tudd nommément kon nag kooka kooka la mu def xam na ko eh, eh, te it mën nañ ko faj nous sommes nag des républicains droit bi muy wax ba jàng nañ ko dàquñu nañ ko dañ ciy diplômé di ay républicains xam nañ droit xam nañ état fajaluñ suñu bopp waaye dañoo tooñ nag mbéj mbé nuñ ko waxeeti mbéjum kanam nag borom ma ko fajal bopp danaay wax ne ci exemple lu may comparé du bokkul sax ndax ñun du ñuy du ñuy euh, service sécurité mais chef d'état bu doon romb fii nga tëb saaga ko mbaa nga yóbbu jaasi jëm ko sécurité bu ñu fa déclenché monsieur monsieur le ko wax oh. lu dul sëriñ du la ko mukk sax saagal jiw wala dumal jiw wala defal jiw déedéet moom li wax jàmm li def ak mbégteem ak cantam rek xam ne kooku dafa xamul rek sëriñ Touba mi waral lépp xamoon na ko fa kullu man chatamani aw laama fa hablahu tawbata wa istislaama ku ma saaga moom sëñ Tuubaa wax na bind ko sax ku ma saaga mbaa nga ñaan ci man jot yàlla yàlla yàlla na ko yàlla sotti te jubale aw xelam yégal ko bu def jégal ñëpp ñun nag am na loo xam mën nañ ko faj danañ ko faj mën nañ ko faj danañ ko faj te it ñu fenn fu ñu waxee kenn bàyyi nañ la ak yàlla du à titre individuel du groupe bi saa boo ñu gis rek jekk nañ foo ñu fekk rek ñun jekk nañ fii may tax ak yow ku ñemee na ñëw jekk nañ te ñi ma wér ñëpp foofu la bëgguñoo àgg foofu ci réew mi nga xam réew jàmm la ñoo ko bokk islam ni ñu jàngal mooy man kaana yuminu billahi wa yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut sallallahu alayhi wa sallam ku gëm dekk da ngay wax bu baax ba nga noppi Sëriñ Tuubaa dañu wax ne yoonu murid li ko war mooy ni ñëetul xayr wa feeral xayr wa xawlul xayr da nga yéene aw yiw di waxu yiw di jëf yiw leneen loo wax loolu loola bokk ci loolu loolu mooy islam loolu mooy diine ku ci tariix yëpp lu ñu jàngale islam yëpp loolu la jàngale xoolu li naa la alxuraan wax kon kooku ki kiy wax wax ji nga xam ne moom moo sooke lii te contexte ba tax mu def ko lii tax ko woon a jóg waaye daf fekk mu jiitu ko wax wax ñaaw ko jiitu contexte bi da koy yee waaye taxatul taxatul mu jóg waaye waaye la tax mu profité ci nag wax la mu war a wax bind bind la la bëgg a bind kooku nag mooy ak yebaate la ak tooñate ca defloo ko mu indi nag tuuma mu indi nag tuuma ak sikki sàkka ndax nit nit waaw waaw nit ñi dañuy wax ne wala fi dañaan wax ne ku ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku ñuy ji ñu ndëmb ñu fekk la ngay sooño yé yére yére liir yaa tooñ bopp ñi toor a toog ci réew mi léegi jàmm rek lañ seq ñoom jotoo ñoom dara le premier ministre Ousmane Ousmane Sonko ba ma koy recevoir sama kër fii Touba ko recevoir maa ngi ak photo yeeg vidéo yeeg ñoom lenn lu jàmm ñu politique ñu amuñu parti politique suñu parti politique mooy alxuraan ak suñu Touba amuñu parti politique amuñu tendance bokkuñu kenn seq ñu kenn dara ñëpp jàmm lañu am ñoom waaye nag boo jëlee ñu dooleel ko wuuf ko muy toj ay jàmm nga noppi ca danañ mën nañu si sàkk ci te ñoom dañu leen tuumaaloon ne ay salafiste lañ xam ngeen lu ne lu ne taaleel nañ leen ko dégg ngeen ko ñu gën a ma gën a xam mm-hmm. te inventé wu ma ci dara wax nañ ay salafiste lañ dañoo contre diine def lii dañoo xam ñoo ko namee dooleel ko mu def ñaaw yi def ñu noppi ca dana indi sakka nañ ko weddi tëjale mm-hmm. d'accord nga ci li ko wax ndax présidence xam nañ dafay génn xam nañ courrier ni muy doxe ci administration mm-hmm. administration courrier bu bind bala génn day am ay visa visa yi am seen chef danañ ko gis bu ñu ko bàyyee mu gis rek ma dañ ca buñ ci opposé du génn dañ la ko koo xam ne yow sa tuumaal ñun ñëpp lenn la ñetti mbir nga ne borom ñaari tur yi la ñun xam ñu li borom ñaari tur moom benn lañ ci xam wallaahi waaw Maamun Mbàkke sëñ Fallou Sylla yàq na waaye xamuñu ko xam ko moo ko na juróom-ñaari tur la wala dafa am agenda xamuñu luy agenda ñun suñu agenda mooy jaamu yàlla wa ma ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jaamu yàlla xam agenda ko jël wax ne franc yi xamuñu xam ba bokk ci moo tax te comme tuumal loolu lay tuumal wax nañ ko fi sax ba muy ne kilifa réew la réew ko tudd ndax xam ngeen ko tuumal na ko tuumal bàyyam loolu ak ray ne mënu ko wees tey nag wax nañ ba wax ne sax diplôme yi wax ne am na ko sax amu ko loolu suñu nekku ci bu ko neexee ko ëppale fuuf te nag li ñuy ñaan réew mi di ko ñaan mbokk ñu dal danañ ànd ak dal ay républicain lañ xam nañ li xew dàqu leen ko jàng gën leen koo xam waaye dañoo am dañoo am kilifa surtout am na loo xam bi ñu tàggu suñu kilifa nag ñoo koy fayal suñu bopp ñàkk ñu fay ragaluñu te xam nañ réew mi dañu te ñu neex nag kon un TPC ku ma tudde ngeen baal ma sax li ma ko tudde tur wi ñu ko tudde sax mérité wu ko li mu ndabay dañ koy wax am am sax mérité dañ koy wax dañ koy wax dañ koy wax cumbur puróñ kuti cumbur puróñ kuti la waaw bu doon mbaam sax mbaam day am njëriñ mbaam day am ndax mbaam mën nañu ko sëf mbaam mën ko taf sare mbaam mën nga ko béye mais ak cumbur amul njëriñ waaw dugal lekk ak génne lekk rek la liggéey puróñ la mën nañ ko jaay boo da dépassé xel de ko gànnaar gi def jaay ko waaw ah, waaw dexu gànnaar gi boo dépassé woon dem jaay ko te te it te it ku ci mu tëdd la ci cum euh, waaw waaw waaw cumbur la ndax ndax cumbur mënta sëf mënta jaay mënta mënta bay puruñ as puruñ la si puruñ da koy jaay amul njëriñ mais puruñ amul njëriñ la parce que mënta wax ay ay ay bëtam baaxut aw laa ma ñoom leer mënul dara mënta sam gële mënta sam mënta sam euh, ay xar bu dee amul as kuti la itam dafa doon xaj bu mag sax ab xaj man mën nga koy def mu lay gardeel mbaa mu lay mbaa mu lay am na fidélité mais askuti moom amul njëriñ dugal lekk ak ak génne lekk la jëriñ te te mën nañoo weesu si nag lii ñu wax mën nañu ko weesu ndax xam nañu la xew ci réew mi lañ dëkk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag bu ñu gën a dugal ndax ci réew mi lañ dëkk dañoo xam ne bu lañ jàpp ne noppi buur yi dañoo ragal mbaa dañoo xamut mbaa dañoo xamut li xew ci réew mi lañ dëkk xam nañ li xam li ngeen jàngale njàng daara yi ngeen jàngale njàng yi dugg nañ daara yoo xam ne dugg leen fa kon na ngeen kii wax na nga xam looy wax te lu ci lañ mën a saafara fu fu waay dëkk xam nañ ko fu waay dugg xam nañ ko ay républicain lañ tam nag xam nañ li république mais ñu ngi art nag kilifa yi rawatina ñaari kilifa gi xam ñoo jiite réew mi ñu réagir ci mbir mi parce que sinon demee dañ ko questionné ki nit boo ko fajee jox ko doole muy agir ci baat ba nga noppi ci day mel da nga ànd ndax ñi ma wut def lu rapport gis gis nañ bër ci démb ñeneen ñaar ñoo xam ne dañu leen di xeex ci décret lañ jël te nekkuñu fi ay institution lañ jiite ñu jël décret dàq dàq te kii li mu jiite du institution ab direction rek la yore rek direction si suba rek maa ngi dégg ci rajo bi genn kilifa day wax du ma ko tudd mu ne am na genn xale bu ko defoon ku ñu fi joxoon benn institution bu mu waxee lu ñëw ci kilifa yi ak président bi fi nekkoon ca saasa lañ ko wàcc moom nee na ki loolu wax ci rajo bi nee na kilifa googu da ko ne ak wàcceem ci rajo bi la ko dégg def ñu sax courtoisie daan ko kaay dañ lay seet rek dañu ko daal jël dëkk da wàcc ko ci saasa te li kii wax gën a garaaw la ma waxoon kii li mu wax moo gën a garaaw la koo ko waxoon te kooku dañ ko ci saasa kon nag kii autorité bu ñu ci noppi nañ ci réagir sinon rek am fu ñu leen dëkkale te bu ñu amee fu ñu leen dëkkale te nag kuñ da leen coûté cher ñun politique ñu contre ñu ci anduñu kaa anduñu kenn Sëñ Tuubaa bi lañu àndal ak alxuraan ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ñëpp ak aaxiru da'waanaa an alhamdulillahi rabbil aalamiin kalimaatillaahi taammaati min sharri maa xalaq bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alladi ja'alanaa xayra ummatin uxrijat linnaas wassalaatu wassalaamu alaa nabiyyil hudaa wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsanin ila yawmi ddin bismillahi irrahmani irrahim barke cheikhul xadim jërëjëf sëriñ tuuba eskey sëriñ tuuba cey sëriñ tuuba borom tuuba moroo mantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu nuyu taalibe ak moroom ma di leen ziyaare di leen bal àq di leen balu àq di ñaan yàlla boo leen bal di sant yàlla ci xéewal yi mu defal te bi ci gën ëpp ci njariñ ci képp ku sukk jébbalu mooy boole gim nu booleeg Sëriñ Tuubaa di ko ñaan nag lu ko neex rek lay def moom yàlla te wane na ay kiimaan ba tey yàlla na bokk ci li koy neex yàggal fi Cheikh Mouhamadunil Muntaqa yàlla na bokk ci li koy neex may ko wér taw féexal ko ci yen bi mu yenu ci toolub lislaam bii muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa nu ànd kook moom te daje ceeg ngërëmul Sëriñ Tuubaa nuyoo bi nag lu gàtt lay doon dama koy teg ci loxol cheikh walla wala na Hamzatu moom cheikh Abdul Ahad mu jàll ci kilifa yi fi nekk yépp am na kilifa yu ñëw ñu ngi ci yoon te lii fukki fan ak ni ñu di ko togg muy ndaje mi sëriñ Mamoun Mbakkeem sëñ Fallu sëriñ Alioum sëñ Fallu sëñ Chérif ñoom ñëpp ñu ngi ci vingt-huit yi ñu bind muy valeur numérique gu Touba nu nag tudd ñaari nit bala noo sori mooy Serigne Cheikh Fatma Mbacké moom Cheikh Moustapha Bachirou ak Serigne Cheikh Mbacké moom Cheikh Mouhamadou mustafaa Fallilou lii kat sotti na nii ñëpp rafetlu ko lool ànd ci lool ku ci nekk am ci wàll waaye fukki fan yii nu weesu lépp guddeeg bëccëg nelawuñu ci jokkaloo ak coordonné ngir jotaay bii nu amal ko boole ci sëñ maam Thierno moom Cheikh Mountakha ak ñi ci des ñëpp. lii ñuy tënk nag moom laay bëgg a wax li war a daje bii bokk yi fi jàdd ay kàddu itam sant nañ leen gërëm nañ leen gis nañ leen ci waar wi guddeeg bëccëg waaye dafa am lu bëgg a wax tuuti bala maa tàmbali mooy ñu xam ne senegal gi ñuy seetaan yëpp le monde entier à travers les médias yéen ñi ko seetaan ni direct ak ñi ko seetaanagul xam leen ni Omar Diagne tuuti na ci dajale nu fii il faut ma ko maanaam ku tuuti la ci daje bii ñu yaakaar ni dafa fàbbi yoonu murit ñun ñëpp noo ngi koy wax mais jàpp leen ni Omar Diagne TPC ne représente rien devant nous ne signifie rien devant nous ki gën a tuuti ci murid yi pour régler son cas loolu na leer nii ñu koy def bu ko génnee médias yi génn ko ñu ni murid yi voilà Omar Diagne Omar Diagne fekk il ne représente rien du dara donc il faut loolu ñëpp xam ko nag du dara murid yi xajuñu ci Afrique xajuñu ci Sénégal xajuñu ci waxuma ak Omar Diagne loolu na ko ñëpp nangu beneen bi may waxaat bala ma tàmbali mooy ñu bari ñu ngi koy toll ci xam-xam murit moo toll noonu ndax am nay argument mais Omar Diagne ko ñuy tontu ci xam-xam parce que yéen ñii jàkkaarloog man les journalistes ak ñu nu seetaan Sénégal dafa bindoo noo xam ni ñu bari seen àll wu xóotul ci diine maanaam li ñu jàng ci islaam xam-xamu islam bari li wuñ ko c'est tout il suffit tout simplement nga dem Google ubbi Google déglu xardaa xardaawi wata wala mutawalli shaaraawi mu wax la ay ay ak hadis nga mémorise ko ñëw toog jàkkaaroog sénégalais yi soo waxee ñu ne waa ji mooy ponkal di ngeen aaya bi mu wax Omar Diagne ne sait rien du tout bu ma ko waxee rek dinaa ko prouver kenn du ko tontu ci xam-xam bu fekkoon ni ponkal mu jóge ci réewu arab ya ñëpp di ko xool ngir xam-xam moo ñëw ni waxi Sëriñ Tuubaa ji nangam bu boobaa kenn du mer dañ koy dij fii ci Tuubaa ba mu toog yàq tubayam xam ne li mu wax du dëgg ci xam mais Omar Diagne mérité wul ñuy waxante ak moom ci xam-xam que soit yo clair du ku ñuy waxat xam-xam bu ñu waxantee dëgg li koy firndeel nag mooy daara yi sëñ As Jaxate ji Daarul Maarif wala institut El Azhar gii soo fi duggee di fi génne xale bu am 18 ans soo ko noonu soo demee ba Alabama su waxtu julli jotee astronomie waaw waxtu wi xaw nu ma koy xamee xale bi dina leen ni imaam Malik boo demee xalil atte nañ ko bu yàgg atte baa ngi nii Omar Diagne nag moom xamul ni. li mu ni fuqahaa yi borom xam-xam yi war nañoo jéem wut solution waxtu julleeg nangam xamuñu ne lislaam réglé war na ko bu yàgg moo leen war ni jàngul dara bu jàngoon du dugg foofu bu jàngoon du wax loolu yéen ñi laay waxal yéen ñi xamul lislaam ñi ci sëriwul Omar Diagne bu xamoon dara du wax ni questionnement yi borom xam-xam yi lislaam yi war nañ ko wutal solution loolu sahaaba yi ak borom xam-xam yi réglé woon nañ ko te loolu miracle la ndax jamono yonente ba ba léegi noo ngi attewul ci atte yoo xam ni lii xew jamono ji lii xew nuy atte woo ca jamono yonent bi ñoom prévoir nañ lépp moom nag xamul dara jàngu ko moo tax mu naan borom xam-xam yi dem leen gëstu ji ndax waral nañu suñu kanam war nañ ko wutal ay solution l'islam wutaloon na ko solution bu yàgg mais comme jàngul nag mënu koo xam foofu laa ci yem beneen bi topp mooy lii nga xam ne moom lañ tënk mémorandum la bind nañ ko ci français muy tribune des vingt-huit de Touba déclaration tribune de 28 de Touba 28 yi nag dinaa ko lim léegi mais ñaari liste la ndax dañoo fas yéene li ngeen di junj bu ñu fi jógee désormais kaaw Omar Diagne rek taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy tey jii ci 7 septembre 2024 diggante Kaolack Sibassor Ziguinchor Kédougou Ndar Thiès fépp dinañ taxaw taxawal ay cellules yoo xam ni képp ku fa laalati sëriñ bi wala nga wax loo wërte wax bu boobaa danañ ko séq ak yow foofu la wax ji jëm Omar Diagne taxu ñoo jóg benn minute mënuñu ko tardé woon nu ñëpp xam loolu amul ma maqaama moom tekkiwu ko itam ndax lii nga xamoon lañ bind bokk na ci ni dans l'histoire du Sénégal ba ñu amee indépendance ba léegi benn nit koo xam ne homme public nga wala privé nga ku waxe nii ci yoonu murit ku bañe nii yoonu murit histoire gisugu ko ni Omar Diagne mel man tur bi sax maa ngi leen jégal ngóor si Diagne laa ko wooye parce que Omar Seydina Omar dafa màgg ngóor si Diagne kenn ku ma sa songee nii waxee di wax ju ñaaw nii musta am loolu nag ndakaaru gee mu nekk réglé koon lu yomb la xam ngeen ni fukki kaa jaar na fi fukki kaa na fi xam ngeen li ma wax Mamour Mbaye mii doon wax bi di fekk na ko buntu Walfadjri sëñ Xaadim Bousso ñii moo ko sowe mi ngi nii toog moo ko sooy woon kon mbir mi rek la woon nag yàgg fekk ñu daw nëbbu ko muy daw dimbali leen ma làq leen ma kon bàkkaar bu mel noonu duñ tax a wax te lii daaw jéeg rek la fekk ñu mooy bi mu waxee ne sëriñ bi day woor ak a wari ci télégramme bu tubaab yi ak El Hadj donc moom diine jëpp la laal léegi nag yemul foofu dem na ba egg ci loo xam ni ñi nga xam ne dañ leen di tudde état de droit ak ci intellectuel ak lu bees loo xam ne bëgg nañoo am rupture ci réew mi mu dem ba wax loo xam ni ku ko wax waroo France te néeg mooy da ngaa accuser ay nit ci blanchiment d'argent loolu dama bu fekkee ne réew mi état bi ñuy wax bu bees bi am na existé na Omar Diagne bu tafran ci bu nekk dañ ko woo kuréel gi mu wax ni ci la nekk muy GIA ba banque yi ñu ko doon jaarale sëriñ si mu wax ni ñoo koy jël pour pourcentage moom ñun ñi da ngay jóg ñu ne bàyyi leen Omar Diagne yaa ngi koy tooñ moom bu fekkee nit da koo tooñ kenn la tooñ moom nag Sénégal gépp la tooñ moom tooñul benn nit tarixa yëpp la tooñ loolu it ñi ñi nga xam ne dañoo naafiq nag wala ñu hypocrite wala soi-disant des intellectuels ne papillon cravate naan ay erreur di def ay commentaires loolu ça ça ne passera parce que li ñuy wax mooy noo kii dafa am xam-xam nangam nangam yéen ñi jàng français jàng droit noo ngi leen di laaj ndax lii Omar Diagne def tey benn murit sañ na ko def feneen jóg jàpp nit waxuma sax Sëñ Tuubaa waxuma yoon wi mais Sénégal droit la ay loi la man nii wala ku mën a doon boo yëkkatee kàddu wax ko beneen nit sayagoo nit ki ñu ne ab jaam la sax yoon dalaa war a lijjanteek yow yow na nga jóg songu senegal gépp tàmbalee ci ñun diine wax ju ñaaw dina ko wax ko kon nañ jëm ci personnalité Omar Diagne man waxoon naa fii duma fi dellu boobu xaw ma ko tàmbaleegul wax aññe na fii ci man ci Touba. añ nag moo ko dàq Sénégal añ na fii moo wax leen ko Babacar Mbuub mën na maa seere te li may wax waxuma ko pour reetaan de moo dàq añ ci Sénégal fekk na ma fii ndindi añ ci man ànd ak Babacar Mbuub ak Adama Mbuub moom tremplin fi mu jaar bañ xam ko mooy ànd sàmm jikko yi fa lañ ko daan invité man jana awma benn problème personnel ak moom mais damaa bëgg xam Sénégal yi tey ñu xam lu leer nañ ci ni nun murid yi lii Maamor wax jot na sëkk xam ni Sëriñ Tuubaa moo nu gënal sunu ndey moo nu gënal sunu baay am na nag benn problème bu am su la Sëriñ Tuubaa nee dinaa dugal àjjana man ma gëm ko ñii fi toog gëm ko yow nga ne intellectuel nga gëmoo ko waaye jàppal sa njàmbur bu ñu demee sawar bu ëllëgee sa yoon nekku ci gëm nañ li sëñ bi wax wóolu nañ ko tey Sëriñ nee na képp ku ñu am nga xam-xam te ragaloo yàlla waxuñu dëgg amoo xam-xam man yax képp ku ragalul yàlla rek bayit bi tàmbali bi dama rëcc inna alladi lam yaxsha rabbal alamin walaysa fa laysa la alimin bi wala inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin wala afnal ulum waaw képp koo xam ne dañu am nga xam-xam te ragaloo yàlla nee na adduna bépp boo ko naanoo amoo xam-xam ragal yàlla nag dinaa leen wax li leen wax leen Omar Diagne mi ngi di déglu ci def na beneen problème boo xam ni yaakaar naa kilifay réew mi man dama leen yërëm sax xam naa duñ nelaw ndax ku xam relation yi am diggante Maroc Sénégal lii relation exceptionnelle Omar Diagne mën a taxaw mi ngi daw ci vidéo yooyu yëpp ni Mohammed cinq mi faatu moom mu di jullit ñu wax ni jullit bu faatu woon bu gënoon a bon ci adduna it ñaanal ko bu wax ci moom lu ñaaw Omar Diagne mu ngeen di wax naan jullit la am na xam-xam moo yekk lii Mohammed cinq foofu rek doy nañ yem ak jullit bu faatu nga war koo ñaanal njëggal yàlla même boo ko xamoon te li muy wax du dëgg nga tuumaal ko ni franc-maçon la yemoo ca doomam nekk fi jiitam réewam di souverain di roi fa mu nekk ngari la yemu ca ngari borom ñaari tur yi la kooku mel noonu nan lay mën a nekk ci benn espace le moindre espace dans l'état du Sénégal ci benn bureau nan la fay mën a nekkee on pose la question mais nag ci biir li ñu bind am na lu ñu wax nee nañ danoo li ñuy gëm ba keroog muy sotti noonu li ñu gëm ba keroog muy sotti danoo gëm ni ñoom ba ñu koy jël di ko fal xamuñu lii loolu waaw waaw dañ leen di dañuy dañ leen di metti foofu li fekk ñuy gëm danoo jàpp ni ñoom loolu la ñuy jàpp noonu ba gis leneen waaye nag day am responsabilité boo xam day engagé wu nit mën naa def loo xam ne nga dénk ko ko mu def ca lu mu war a def nga woo ko faj ko ma jox ñaari exemple film Carmen Carmen xëy na gone yi xamu leen ko film Carmen dañ ko defoon doon profané Serigne Touba ak xasida yi Touba laa xëyee dem Dakar woote keroog foire ba 5000 personnes ñu nga fa woon Babacar Fall mii nekk RFM booba TFM amul je yaakaar naa moo jël si woon reportage ba ci foire ba Abdoulaye Wade dafa woote ni film bi nee leen Serigne Moustapha moomu film bi waxuma foire bi sax waaye Sénégal dootu fi daw ñu ñu arrêté film Carmen ña ko doon joué kenn ka mooy Carmen Gaye ñu ngi ko jàpp ca Niger ko ku jigéen mooy Carmen yaakaar naa fi mu toll bu deful itam soriwul ka doon wooy wooy ja dafa paralysé fi mu toll nii muy filmu Carmen ba ngeen dul dégg ñu jóge fa kii fi jóge nekkoon réew ñu jar ko am na acte bu def même bu ko gëmul pour diine mooy am na ku ñuy wax Omar saw xaw ngeen baal ma Omar moo yoroon deer deer ki ñu faloon deer Omar Omar waaw Omar naa ngi bu deer non non Omar la tudd tubaab mooy ci njàqal waaw kooku tur bi laa fàtte waaye fay rëccu ma mooy bi mu toogee ci affaire féminisme mu ni jigéen ñi dañoo war a yem ak góor ñi ci ay salaire dañ leen a war a yemale yooyu ñu seen ñëfi caaxaan yooyu ñu wax rek ba ci yàgg mu ni jigéen ñi sax gis naa sëriñ soo xam ne ñoom dañu dañu nuyu jigéen te bu guddee ñoo jigéen ñi kenn la yàlla xam doy wax wax ju ñaaw mais ci suuf sa lañ ko wàcce ci suba sa lañ ko limogé te mooy yoroon DER loolu lan parce que dans c'est dans général dans la cohésion national maanaam du question président wala déedéet mbirum intérêt général la kooku ba mu laalee loo xam ne ñëpp la laal dañ ko wàcce fa saase kon donc lii kaala boo xam ni loolu rekk lay tekki léegi nag li am mooy kii di Omar Diagne yéen murid yi ak taalibe yi bokk jullit yëpp xam ngeen ni bàyyiwul Serigne Touba bàyyiwul Niassène bàyyiwul Khadr bàyyiwul Layène bàyyiwul kenn ndax ñëpp la dugal ci biir nee na dañoo war a am état démocratique boo xam ni état dictature boo xam ni yoonam du nekk ci sëriñ du nekk ci kenn yéen ko dégg mu ngi ci vidéo yi ñëpp def nañ ci waxtaan. kon yaakaar naa même ñii jàkkaarloog man ma wax leen ko tuuti dafa am loo xam ne buñ noppee ci waxtaan bii ñun xam na ni yéen ñëpp lu baax ngeen bëgg yor seen profession di ko liggéey mais ni ñu ko waxee nii nii nii nañ ko tege noonu jàllalee ko noonu bañ koo dagg mu doon loo keneen dina ko jël di ko exploité ci loo xam ne waxuñu ko fii loolu dama koo wax c'est pas pour vous mais am na ay benn benn yu koy def kon nag léegi ñun li ñu décidé mooy danaa wax fii sëñ Fallou wax na ko léegi si la wax naa loo xam ne tey jiitu bu ma ko waxoon tey ñu ne ah kii kat am na lu tax muy wax mbirum politique ku koy def moom def ko à ku ne am nga ci droit man nga ko sañ nga ko ku bëgg rek da ci ciy dugg man damaa yaakaar ne xidma la ñu war a remplacer baatu politique parce que politique Sénégal. politique ci Sénégal bu amoon ndey wala baay wala mu mën a jël avocat dina jël avocat xeex ak Sénégal baat bi ci foofu na lu ñu xamul lu muy tekki c'est l'art de gérer la biiru tadbiiru daw la fexe ba nit ñi laar maanaam da ngay xare da ngay muus ñii nag ni ñu koy defee bokkut ak ni nga xam noonu la ko ñu ko bind di defee ñu war ko remplacer ba alxidma alxidma mën naa remplacer politique li ma bëgg wax foofu rek mooy sëñ Fallou wax nga ko léegi sere murid yi mën nañ laa mën nañ laa bàyyi seen seen alal mën nañ laa jox seen xaalis mën nga leen a saaga ñu bàyyi la lu ne mën nga ko def ab murit waaye gis boo laalee sëriñ bi ne la wér ni mën na laa bàyyi ko yomal xew loolu nu leen ñëpp loolu nag li muy tekki mooy ñii fi ñëwoon bëkki démb nekk fi yàlla indi leen fi ñi ñëw Tuubaa gii ñëw fi ñëween rafet gis sëñ Muntaxaa xol yëpp dëkk nit ñëpp yaakaar yi jógaat dafa am loo xam ne sëñ Muntaxaa moomu ko sëñ ko soog togg ak ñëpp dafa koy wax sëñ Muntaxaa moomu ko ci sëñ Saaliw laa ko dégg dafa am ñu tooñoon sëriñ bi bind bind mu ñaaw ñëw fii di jégalu sëñ Saliou ne leen hmm, salaam man de damaa bëgg ngeen xam ne li ngeen def lépp jégal naa leen ko waaye dama leen di leer rek bi sëñ man rek dama ko bokk ñëpp rek may bañ ngeen def loo xam ne bala la ngeen di jëflante ak taalibe yi ba bala ma koo yëg ngeen jëflante ak ñoom bu noppi kon sëñ bi sëñ Tuubaa kenn moom bu ñëpp ko bokk kon képp ku yaakaar ni nit mën na laa protéger yaa ngi nax sa bopp murid yëpp ko bokk fa ñuy toj fa ñuy tojal lu bon ka ko wax fa ñuy tojal lu borom sëñ bi mën na ko bañ a fekk te xew na fi xewati fi kon li ñuy wax mooy nit ñi fàllu nga ko léegi nit ñi yor ay carte yor nañ lu re nit ñi nag mën nañoo bañ a xeex waaye am na xeex boo xam nañ ko xeex yaakaar ji am nag ba Touba participer ci participation boo xam ne kenn mësu koo gis ñii yàlla teg leen fi nañ xam loolu bu leen ko Omar Diagne jaralee nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax duñ leen wax nag def leen wala dindi leen waaye man de ku leen yéene lu baax dana leen wax ne leen lii te nit ñi am na luñ daan wax fi ñu toll man maa ngi rëkk lu ne maa koy dégg nit ñi am na lu ñu daan wax am na nag lu boo xewee bu boobaa yow sa bopp dootoo xam looy wax am na lu ñu daan ruumandaat te kii doxinam wii man dama ni sax moom est-ce que moom ci foofu du franc parce que li mu xam ci franc-maçon ci bokk rek ku koy mën a xam am na stratégie boo xam ne moom la kuréel yi tëral dañ naan bokk ci mais demal di nu saaga demal di wax ci loolu laat pour Sénégal yi tàmm ko bu banaliser ko muy mbirum ñaari tur yëg yi am na ñoo xam fi toll ay franc-maçon lañ mais dañuy saaga franc-maçon yi parce que dañoo bëgg nit ñi banaliser mbirum franc-maçon ba dootuñu ko def muy dara moom mii li muy xam ci ay secret ci biir yàlla rek a xam moom nag du kenn jërluwul lii lépp ku koy tontu daal bu ko tontu ci xam-xam ndax booy tontu lii da koy tontu ku jar a tontu ci xam-xam mooy kuy wax ci xam-xam waaye kat bi waxul dara tekkiwul dara kenn xamul fu mu jógee jaaduwul lii ñu koy wax nag bu yëkkatiwul kàddu duñ ko wax am na nit ñuy wax naan lu tax ñuy wax bu yàgg ba léegi waxuñu woon yéen ngeen média ñun ba mu waxee loolu sëñ bi tontu nañ ko ak ñeneen ñu dul moom ñaareel ba itam li tax tontu Sénégal dafa toll woon ci état état bu critique 2021 bu 2024 ñu bàyyi ko rek muy wax li muy wax bi yàlla defee nag loolu jàll nit ñi sax xaw nañoo giif ni nañ ko muñ mu wëlbati ko bërki dem bu def loo xam ni loola du question yoonu murid dafa ñàkk ay dalukaay foofu laay jeexale foofu laa jeexale kër gii nu nekk di kër Sëñ Tuubaa Daaru Manaan xool leen bâtiment yi fi nekk am na suite présidentielle mi ngi fii ci kër gii am na téeméeri chambre yoo xam ne benn boo ci dugg doo mën a toog yow kër gi kër gi fi nekk lu mot cinq bâtiment bi ngi fi hôtel King Fahd ba muy bañ li taxoon ñu di ko sàkk mooy foofa naar yi ak ñëpp dañuy ñëw kii day ñëw cinq kii ñëw six heures kii ñëw sept heures ñu sàkk ñuy dal foofa pour rassembler leen dugal leen ci benn oto ndax doo mën a dem aéroport bu kii ñëwee six heures nga yóbbu kii ñëw sept heures nga yóbbu ñu bëgg leen dajale rek pour vingt quatre heures dugal leen ci oto indi leen mais yoonu murit li mu yor xajul sax ci état Sénégal koy dimbali koy dimbali Turquie di dimbali Maroc pour tremblement de terre li koy wax xajul ci Sénégal kon ñii wax di tontu ak a wax xamuñu li ñuy wax ñun wees nañ foofu Masaalikul Jinaan tontu na ko jumaa yi Tuubaa tontu na ko jumaa yi Njaaréem tontu na ko Poroxaan gee sëñ Moussa mën a xadd loolu duñ ci wax di ci sori kon yéen ñii di journaliste bu ñu waxatee xam leen ni lii moo nekk moo am te yéen a ko gën a xam sax xam ngeen ni yoon murid mën naa dimbali état yàgg naa dimbali état loolu na leer nañ kon nag li wax mooy ñun ñëpp lu baax lañ bëgg jàmm lañ bëgg réew mi nu nekk ñii fi nekk yéene leen jàmm ku leen yéenewul jàmm moo leen naan Omar Diagne mii téye leen ko bu mu leen sori dégg naa léegi ko wax naan nañ ko def pour déedéet nit ñi def mun noo ànd ak sun lu ñuy naqal ci suñu xol ñu bàyyi jëmu ju mel nii muy nekk ci lu ko neex loolu lañ ko bàyyi xel loolu lañ bëggoon wax ñëpp dégg ko di balaat ñëpp waaye ne leer daal fii ñi fi toog ñëpp kenn ku ci nekk tey am na loolu yëg ci Serigne Touba te Serigne Touba moo la fi indi kenn kenn solul kenn ci mu ñëw fii lii nag day jeex bi si ki tey Omar nag moo tax mais li ñu doon lijjanti weesu na Omar Diagne na leen leer maa ngi leen di xamal ni weesu na Omar Diagne waaw loolu laa bëgg a xamal ñëpp jërë ngeen jëf